man ñu ngi may a Mamadou Niane dëkk Nimzaat Pëlga mais nag dafa mel ni ñun dañoo fàtte te ci lañ bokk te nag dañoo nekk jeunesse boo xamante ni ñun fi ñu nekk wax dëgg yàlla dañoo suude te suñ gox bi moo ñor gox bi bu nawetee da ngay rusa sax indi fi nit parce que doo am foo jaar parce que parce que parce que daal nawet daal moom daanaka boo ñëw da ngay xuus te fii dafa wóorul man am na fi benn corté boo xam ne damaa dugg waa topp ma nawet boo xamante ne nii su amoon lu ma dugg

loolu noonu wax dëgg yàlla bëgg nañ ku ñu tim dëbb baax a baax a baax a baax a baax suñu ñi boor bi sonn nañ heure bi ñuy jóg pour dem marché wóorul fii la ñu xuus te ku ne mën na a kar jamono yee ci ginnaaw na benn xale bu ñu fi kas dugal ko ci maalu oto parce que fi fi nekk xam nañ ne mën nañ faa jàpp la ñun daal bëgg nañ ku ñu dimbale wax dëgg yàlla ku ñu dimbale mbedd yi gën a leer yoon yi gën a baax bâtiment yi nga xamante ni dañ ko fee tabax te dara néew fi ñu xool sak pexe loolu daal yittewoo nañ ko lool mm-hmm. loolu daal mooy suñu suñu suñu yi wax dëgg yàlla ñu koy jooy wàllu lotissement bi tam dara jagu ñun fi mu toll nii suñ kër ñu ko taxawal mm-hmm. romb kër romb na foofu mm-hmm. boo boo boo nga am lépp da ngay fàtt parce que am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla war na ñoo te te jóguñu lolu lolu wax deug yalla nit ak dekkandom mëno mëno ko ko mëno ko ko joy ñi ci wara dimbalé dal ñoo ñi nga xamné ñoo autorité ñi nga xamné ñoo ngank kawlak té nañu fatali ko té xamné ñun ci lañ bok parce que ku fi ku fi né ñoo la fal té yow ñun ñoo la fi nekkal yow aussi wañu fi wara nekkal wax deug yalla lolu lepp ñu koy joy dal waaw wàllu courant ndox dara doy ci dara doy ci man fi mu toll am naa tuyau boo xamante ni dañ maa indil facture quatre-vingt-douze mille tuyau bu toj tey daa woote naa ba sonn mënu maa jot kenn nee ma ñu ngi ñëw gisuma leen te facture bu ñëwee ala kulli haal da koy fay loolu métti na trop maa ngi quatre-vingt-douze mille yoo xam ne fayaguma ko te lu ko waral tuyau bu bënn am na fuite woo leen ñu ñëw ne ma bon compteur bi loolu la marqué te ñoo defar ko bon moment wax dëgg yàlla ah lamp mbedd yi moom yi day tàkk yi du tàkk yi day ah, lépp daa war a tàkk ah, parce que dañoo yore te ci lañ bokk ci réew mi lañ bokk ci kaw lañ bokk kii Aram la waaw fii Nimzaat extension lañ ñu xàmmee parce que dem na ba suñ kayitu kër sax lu ci ëpp Nimzaat extension la ñuy wax ñun dañ ñoo boole ci Daaru Salaam ci li ñu wax mais ñun daanaka dañ ñoo yokk ci Daaru Salaam ñun suñ quartier bopp moo moo ñu moo ñu moo ñu arrangé ndax fañ ñu boole suñ fa suñu bopp te lii may wax xam nañu ko ñun buñu waccé occasion lélé dañu waccu occasion buñu ci buñu joggé mhm. mhm. ah, mhm. bi dëkk bi du ñëw lélé ñu waccu mass kibel kon xam nga ñun amuñ yoon fi borom taxi fi dëkk am pagay képp kuy ñëw navette fa la ngay sanni sa auto da ngay dox ak sa sa tank parce que lutax lolu moy ndox taxi amna yo xamantene buñu duggé ci biir ndox fay tata yi duñ duñ fi jaar xalaatuñu ko sax fi képp kuy génn da ngay génn heure di dugg heure bu gëné guddi tuuti do génnati ñun ñuy ñaan nak comme ñun ñom sommes am. Uh-huh. ñom ñun lañu am uh-huh. nañ ñu jappalé uh-huh. défalon ñu ay yoon yo xamante suñu auto oto mëna a dugg ku génn mëna dugg. ci jamm ak salam sara ou extension Nimzat est parmi les quartiers les plus défavorisés. Pour dire défavorisés, pourquoi Parce que nous avons d'énormes problèmes. À chaque fois, nous réclamons et toutes ces réclamations n'ont pas de suivi. Pour dire nous avons des problèmes d'assainissement. Nous avons beaucoup de problèmes. L'un de ces problèmes, surtout, c'est l'électricité. L'électricité, ici, c'est un peu concentré dans des zones. Et ça doit être décentralisé. Autre chose, c'est le manque d'eau. Et qui dit eau, dit source de la vie. L'eau est source de la vie. On a des problèmes d'eau, surtout. Nos à chaque fois, <laughs> elle se lève mais à chaque fois nous rencontrons des problèmes vraiment qui sont déplorables. Pour dire d'abord, encore et ensuite, l'électricité, problème, premier problème, assainissement. Pendant l'hivernage, notre quartier est vraiment enclavé et aussi nous avons des problèmes de déplacement. L'essence, Vraiment, je, je pense que l'essence ou la source première de tout, une, euh, de tout un développement, c'est avant toute chose, les gens doivent se déplacer. Et nous avons besoin de se déplacer à tout moment. Et pour se, euh, et pour se déplacer, forcément, nous aurons besoin des, des voiries. Pour dire des voiries qui nous conduiront jusqu'au centre-ville. Nous lançons aussi un appel surtout au président de la République. Parce que cette image, vraiment, ça sera ensuite décentralisé. Et nous, sentons et nous avons la certitude que le président, Inch'Allah Ta'ala, va entendre notre communication. Pour dire, Président, il faut nous aider. La population de Nimzat Extension en a marre. Nous avons d'énormes problèmes de vie et on fait partie de la population sénégalaise.